ala alihi wa bokk julli ñu ngi sant sunu boroom Mawlana tabaraka wa di julli ak sëlmal ci sayyiduna Muhammad sallallahu taala alayhi wa di leen nuyu di leen balwaq ñaan sunu boroom mu boole nu ak njëggal ak yërmande defal ko ñi ci biir suuf seeg ñi ci biti ñu ngi dellu si ñu di leen fàttali bind boo xam ne sunu bopp lañ ci jiital te mooy nu bokk nu ñëpp wattandiku sunu boroom ci ndigalam yi wattandikoo ci tereem bi bokk ci li gën a loolu yonent saa saa moo wax ne ak diinu nasiha nee na diine laabire la moom mi ko waxoon nag ci la jeexal ak dundam mook saxaaba yi ko waroon ña ca topp ñëpp it topp nañ ko ci loolu yonent ya ko jiitu itam ci loolu lañu nekk ndax suñu jàng histoire sayyiduna Nuux alayhi salaam ci alxuraan kam dañuy fekk muy wax nitam na uballighukum risalaati rabbi wa ansahu lakum wa ahlamu min allahi ma la taalamuun mu ne leen naa leen leetaru sama boroom li mu digle ak li mu tere laabire naa laabire naa leen te xam naa ci yàlla lu ngeen xamul beneen yonente bu ñu wax sayduna saalih wax nitam ne laqad aflaxtukum risalata rabbi wa nasaxtu lakum walakin laa mu ne leen jot li naa leen leertaru sunu borom laabiire naa leen waaye yéen bëggu leen sax ku leen laabiire bokk yi di jari ibnu abdillah saabu bu mag la dafa wax ne damaa jaayante ak yonent bi saa salaam ñetti yëf mooy taxawal julli joxe asaka ak laabiire jullit ñi te laabiirante dara jiituwuta jàngal ko xamul fàttali ko xam te lépp solo ci li ñu fàttalante nag mooy sunu diine ndax mooy li nu amal njariñ fii ak fële nasiha boobu yi sunu mag ñi def nañ ci liggéey bu rëy tariixa yi ñu doon sos yépp ngir laabire nit ñi ñu dugg si ci lislaam te suñu dugg see ñu nekk ay jullit xàqan li ñu tuubal ci réew mi dugal leen ci diina ji kenn xamu nu mu toll ba ñu laataan dem ñoom ñooñi bàyyee nañu diinan xaalisan diina ju set wecc su doon ab tool ñu ne bàyyi nañu ko ba mu set ñu ñàkk ko ba mu def benn bunt ñu door a dem kon sàmm tool bi ba kenn du ko ruur moo nu ci war waaye li ëpp ci ñu ko war ñu ko war a sàmm nag ba kenn du ko ruur ñenn ñoo ñoo far di ruur tool bi mooy sama maas gi bëgg di dunde diine te duñu dundal diine loolu ñooñu lu yàqu ñooma ndax na waroon naa fekk réew mii kenn ku wedd yonent bi saa du fi fanaan waaye ñu tuubul ñàkk a gi ñu ñàkk a xemmeem suñuy jikko moo tax duñu tuub mukk ndax sunu melo ñoom dañuy defe ne mooy diine ji te sunu melo ak diine ji bokkuñu gannaaw nun jullit ñi noo bokk lu nu gëm kon xeebeel warul war a dox suñu diggante te li ëpp solo munta ñàkk ñoo ko bokk gëm mooy laa ilaha illallah kon li ci des waruñu woon a mën a tàggale muy tariixa yi nun nag nun taalibe Serigne Touba yi Serigne Touba bind na lu leer bàyyi na fi ne ku aju ci moom bul noonu ku gémmiñam ku gémmiñam di wax laa ilaha illallah falaa tuhaadu man raaytum faaw yuxriju laa ilaha illallah kon murit bu noonu ab julit xëtt nga digalul sëriñ bi wolof na xàmmewul féete ak far féete baax na ku nekk sañ nga ko waaye far baaxul rawatina ni ñu koy defee te mooy li baax lépp ngi fi man ku nekkul ci li ma nekk nekkoo ci dara loolu njuumte lu rëy la ndax sunu boroom mooy maye te ku nekk la mu la may ump na sa moroom bokk na ci lii ruur tool bi te nekk ci biir tool bi ñu bëgg a fent barke barke bu bees xëy benn bés fent mbooloo mu bari ñu topp la te doo leen gindi ndax mën naa am xamoo ko wala xam nga ko waaye doo ko def ngay jariñu ci ñoom ñuy loru ci yow te loolu lu yaatu la nga di leen wax lu nekkul ci yow te xam nga ne mënoo ko itam maa yore kun fa yakkoon maay faj aajo yi di yokk fan yi garanti leen àjjana te doo leen laabiré ci ñu jaamu yàlla seen borom wuuteeg loolu li nga xam ki nga xam ne moo gën a màgg ci bindeef Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon dafa wax ne wa maa adri maa yufalu bii wala bikum inaata attabi'u illaa maa yuuhaa ilayya wa maa ana illaa nasiirun mubiin nee na li sunu borom di def ci man ëllëg xaw ma ko sax waxuma laa di xam li muy def ci yéen man topp ma lu dul li ñu ma wax yu mu wàcc ci man kuy waare rek la di woote jëmale ci ndigali sunu borom yi Sëriñ Tuubaa itam lu mel noonu la wax ne yaakaar aljanna ëllëg te nangoo jaam yàlla te jaamoo ko ci sunna Sayyidina Muhammad koo ko def di nga waru boo liggéey te lu bari ci nit ñi dañoo mar yàlla xiif mbaax ku woote ñu wuy si la defe na yàlla lañu fay fekk suñu agsee la ci ëpp du ñu fa fekk yàlla du ñu fa fekk yi lu ko nuru nuroog aaya bi borom bi suñu borom di wax di ci misaal jëfi ñi wedd yàlla suñu borom day wax ne wala si ne kafaroo bi xiixatin yaxsibu samaaru maan atay saa jaaho la may yudu saya suñu borom nee na ñu wedd yàlla seeni jëf mi ngi mel ni kasaraabin bi xiixa detti mbeer li ñuy wax detti mber mooy fu ndox daan taa boo ko séenee ci nawet boo ko soree dafay def ay rey rey mel ni ndox fa nekk nee na yax si bu samawar ma nee na ki mar bu ko séenee day defa ne ndox fa nekk su dawee bàgg ba du fa fekk dara woote yu baree bari yu ñu woote ci diine ak tariixa bi noonu rek la dañu lay woo ci diine ba nga ñëw ñu di la jariñoo lu ci bari nag ñàkk xam la moo tax ñu war a jàppale njaboot gu ndaw gi ba ñu xam ndax nit ku xamul wax ak moom ak liyaar gumba benn lañu bokk na yi ba tey defe na sa jaamu yàlla kilifa doy na la wërif ngay jaamu yàlla te jaamu yàlla du jeex li fekk yaa ngi ànd ak sam xel di ànd ko yëg yàlla jaamu yàlla di la war ndax saa boo noppee ci farata naa ngi taxaw te du jeex te nee sëriñ bi noon na taalibe yi dem leen jaamu ci yàlla jaamu yàlla yi may def sama bopp laa koy defal te wax na dëgg yonent saa saa moo gën a màgg ci bindee fii garanti bi mu am fa suñu borom benn mbindam abu ko te suñu borom nee na ko waxbud rabbaka xataa yaatiyaka al yaqin jaamul sa borom ba ba ngay faatu kon mbokk yi tool bi muy lislaam ku nekk am nga ci aw dooñ wow saa boo ci gisee am ñax yaa ko war a bay te sàmm ko ba du ruur mbokk yi nañu bàyyi xel ci ne Sëriñ Tuubaa mi ñu topp ci gannaaw li nu moom yàlla rekk la danoo bokk yoon wi di dox mu raw nu nu bokk tool bi di bay mu mën na ci nu topp ko waaye fi la fekk sant wi fi la fekk askan wi te magu ci waaye ragal boroomam ak rafet jikko nag bariwu ci nawle te ñaari yi muy ragal yàlla ak rafet jikko Seydina Muhammad sallallahu alayhi nee na moo ëpp ci luy dugal nit aljana la sëriñ bi nag li ko waroon ci sunu diggante ak moom ci wàllu nasiha boobu def na ko ndax wax nañu dégg bind na itam bàyyi fi kon bokk yi ab teen ab teen su dee benn ci dëkk ñëpp di ca naan ñëpp a ko war a sàmm te teen bi mooy lislaam foofu seen ndox ak lu mu bari bari ci lañu ko roote kon suñu sàgg ne ba bi sakk dëkk bi yëpp ay mar kon nañu góor góorgóorlu bu baax ci laabirante ak rafet jikko lislaam su doon jikko su doon jëmm jikko ci rafet mooy ay yéreem waaye laabirante moo koy yaatal nasiha boobu muy laabire doole du ko def waaye xam-xam moo koy def ak xel mu rafet ak jikko ju kawe ci la Sëriñ tubaay yi di fi ay bokkam ak i nawleem te diine nawle la xam te nawle dafa am cëru boppam waaye ni ñu koy defee Euh, koo bokkul pas-pas xeeb pas-pasam ku gëmul li nga gëm nga jàppe comme noonu jàppe ko nit ku bon loolu du doxal dara loolu itam du nasiha su fekkee damaa wedd li nga gëm laa biire ma te jaare ko ci xam-xam mooy tax ma man laa fekk si waaye du noonu ma ak wax ma lu ñaaw te ñu ci bari li tax ñuy def loolu làqatu ci ñàkk xam rek la ñàkk jàng ki nga jàkkaar loolu te bokku leen pas-pas gannaaw moom góor góorgóorlu na ba li muy wax mu wutal ko ay dalil ci alxuraan karim ak addition ak addition sasam tontu ko foofu yi nga war a def waaye tontom du wax ko lu ñaaw ak naan ko da bañ sëriñ beeg da bañ yoon wi yooyu yëpp loolu du tontu danga koy tontu ci xam-xam loolu du nasiha sëriñ Tuubaa dafa wax ne ngëneel moom suñu borom daf koy jox koo sob fa inna fadlallahi laysa muxtasar yuxtihi man yasaauhu min al basar sëriñ Tuubaa nee na ngëneelu laa nekk fa suñu borom xatul lu yaatu la lu dul jeex la te daf koy jox ku ko ku ci bindeef yi njëkkante nga ne li suñu borom yi nag fexe caa duy sa ndab moo gën di jéem a yër ndabal njàmbur ak di sikkal la ca biir te bari na koo xeeb moo ëpp la ab cër fa suñu borom yëf yi nekkul ci matériel bu àdduna ak kër yu rafet ak oto yu rafet ak mbooloo mu bari waaye mi ngi ci ragal yàlla te loolu du feeñ fii ci àdduna ëllëg lay feeñ suñu peesee ba jëf yi ba noppi ku nekk ni peese sa jëf jox la say téere su boobaa da nga xam ki nga gën ak kël la gën Sëriñ Tuubaa nee na bul xeeb waa ji ngir mbubbam mu woyof ak yaramam wu ñaaw te barib tër laa tastaril xabdali xobxil malbasi maxa taxaddudin wa kusrit dana si ne bariwaana ku mel noonu yi te ma nga fees dell ak leer sun borom ak mbóotam ndax is rubba si taxaddudin xadimtalaa nuuran wa sirran min ilaahin xat xalaa waaye Sëriñ Tuubaa nee na bari na waa ne koo xam ne dara jaam lu kawe la fa bëti nit ñi nee su génnee ñëpp jóg taxaw ba mu toog ñëpp door a toog ngir yaakaar cër bu mu am fa sunu borom waaye wal wa huwa kal xirdi la dar rahmaani moo gone ñoo yam cër fa sunu borom rabbana atina fi dunia xasanatan wa fil axirati xasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad